an alsahabati waltabiin wa man tabiahum bilhuda walimani ila yawm ddin baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu gannaaw wu ñu sante borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne ahlu sanai walhamdi walmajd ñu ñaan ko mu wuutu ñu jëlil ñu ci yant yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam gërëmal ñu saxaaba yi ak ñu topp seen njub ba bés ñu ngi wax mbokku jullit yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nekkoon ci téere bu barkel bi ñuy wax kitaabul kabairi lil imaam zahabi rahimahullah muy les péchés capitaux en l'islam muy bàkkaar yu mag yi nga xam ne tëkku dajee rot ci alquran ak sunna bàkkaar bàkkaar la waaye bépp bàkkaar boo xam ne dañ cee tëkkuwaat teg ci moom la ñuy tuddee les péchés capitaux yonent bi jàngale woon ci juróom-ñaar ibnu abbas wax ne juróom-ñaar fukk la gën a jege ci juróom-ñaar yonent bi dafa siti woon rek juróom-ñaar yi tey ñu ngi ci kabiratu assaminatu wal xamsuun muy cinquante huitième kabira ci soixante dix yooyu imam zahabi beroon <clears throat> ngir bëgg a jullit bu ko dégg rek xam ne lii kat bare na ku dem safara te bakkaar yu mel nii moo la fa yóbbu tey ñu ngi ciy jël kabira bu ñuy wax azabxu li gayrillahi azza wa jalla mooy nit kuy rendit ngir leneen lu dul yàlla moo xam ay tuur ngay rendil moo xam ay xërëm ngay rendil moo xam ay samp ngay rendil moo xam ci géej gi nga dem di rendi moo xam ay rab wala seytaane ngay rendil bépp rendi daal boo xam ne donte sa sëriñ la sax nga jël rendi gi tuddee ko ko tudd ci turam loolu non seulement kenn du ne la kenn du ne xaraam na mais kabiira la maanaam eh, grand péché la boo xam ne nii tuub da ci war ak jégalu bu rëy ndax sirk euh, moo tax masalu man yaqulu bismi shaytaan aw ilsanam aw bismi cheikh fulan qaala allahu taala wala takuluu mimma lam yazkur isma allahi alayh qaala ibnu abbasin yuridu almaytata walmunxaniqata ila qawlihi wa ma zubixa ala annusub wa qaala alkalbi ma lam yuzkar ismu allahi alayhi aw yuzbax li gayrillah qaala ata yanha an dabaix kaanat tasbaxuha quraysh wal arab ala al awthan wa qawluhu innahu la fisqun yaani wa inna kulla man lam yadkur isma allahi min almaytati fisqun aw xurujun an alxaqi waddin wa inna alchayatina la yuxuuna ila awliyaihim liyujaadilukum ay ay yuwaswisu cheytaan li waliyihi fa yulqi fi qalbihi aljidaala bilbatil wa huwa anna almushrikina jaadalu almuminina fi almaytati qaala ibnu abbas awxa shaytaanu ila awliyaihi min al insi kayfa tacbuduuna shay'an laa ta'kuluuna maa yuqtal wa antum ta'kuluuna maa qataltum fa anzala allahu taala hadihi al aaya wa in atactumuuhum innakum la mushrikuun qaala zujaaj wa fi hada dalilun ala anna kulla man kullu man axalla shay'an mima xarama allah xarama mima axallahu allah fa huwa mushrik Euh, yàlla dafa wax ci alquran di tere ñuy lekk lu ñu rendi ci lu dul turu yàlla donte ganaar la ganaar goo xam ne dañ koo mis wi ba mu neex ci njaayan bi lool waaye bu yégée ne biñ koy rey tudduñ ci turu yàlla duñ ko lekk te gis nga àdduna yàqu na ba nga xam ne exportation importation dafa yaatu ba nga xam ne euh, yóbbu na léegi nit dinañu reyee ay jur Italie wala France wala feneen indil la ko ci sa dëkk nga war ko lekk te doo am yaqin ndax rey nañ ko ci turu yàlla wala déet werante yu bari daf cee nekk waaye dañ wax ne bañ ko laajee maam Cheikh Al Khalifa radiallahu anhu dafa wax ne yow comme xamoo ndax tudd nañ ci turu yàlla mu déet yow tudd ci turu yàlla rek boo koy lekk waaye am na mu tey doon yoo xam ne nañ dafa xaram ndax loo xamul fuñ ko reyee euh, kooku kenn du ko lekk mais am maa loo janool nii boroom tëral ko tudd moom leneen maanaam bismi cheytaan mu tudd cheytaane muy satan wala moo xam rab bu mu tudd wala jinne bu mu tudd te ci mu dellu ci shirk wala mu rey ko ci turu benn euh, xërëm nga xam ne asiatique yi li ñuy reyal seen xërëm yi kenn xamul nu mu toll wala nit ki ne moom maa ngi reyal lii Euh, au nom du père euh, moo xam papam bu mu bëggal màggal la wala kii te léeg-léeg da koy gis nit di def anniversaire nga nekk dama lay reyal nag bi reyal ko nag boobu firiwul ne nag bi yaa ngi ko war a reye ci turam ci turu yàlla nga koy war a reye ndax lépp lu ñuy rey wér na ni yow mi ko rey moom bindoo ko kon te bindoon moom nga ko war a reye ci turam mais boo ko reyee ci tur ku mu mën a doon moo xam ka nga tudd nag jullit la wala du jullit donte ab sëriñ bu baax la sëriñ ba moom dara yoonam nekku ci waaye yow la nga def shirk la loolu itam moo xaraamal yàpp wa donte ganaar la wala picc la picc boo jëloon sax nangam yeneen bi sallallahu wax na ci xadis bu raklu ne nit dem na àjjana ci benn euh, weñ weñ muy muus yi di naaw waaye nit itam dem na safara ci benn weñ muy muus yi di naaw ñu ne ko lool lu mu mën a nekke mu ne dafa am benn dëkk boo xam ne ku fay franchir rek dëkk boobu danga nga war a euh, rendi benn euh, loo mën a rendi loo mën a jënd am na ñuy jaay foofu xar am na ñuy jaay ay chèvre ak yu mel noonu da ñëw ne jaay ma nangam nga rendi loolu ci turu maanaam rabu dëkk ba wala xërëmu dëkk ba benn waay ñëw fo ñu ne ko isbax rendil ngir ndax aaday dëkk bi mooy ku fi dugg war nga rendi nangam ak nangam mu ne man awma lu ma rendi ndax gis nga pauvre la awma lii awma lii <coughs> ñu ne ko rek loo mën a am rek rendi ko mu def nii ci air bi euh, daj benn benn weñ euh, mu dagg ñaari laf yi ne yéene naa ci rendil xërëm bi loolu li muy tuuti tuuti shirk la ndax innamal amalu bi niyaati yéene la def ba mu daggee euh, ñaari laaf ya yéene ci euh, jegee ko kooku ba mu dee safara la ndax rendil na ko dul yàlla yeneen ci bi ne beneen waay tam ñëw ca dëkk ba ñu ne ko rendil wax lañ ko wax kële waa ji ne man jullit laa duma rendil ku dul yàlla ñu ne ko ba ci weñ mu ne ba ci weñ sax ñu jël ko rendi ko bañ ko rendee mu dem àjjana directement kooku lu ko dugal àjjana résistance bi mu am ci rendi weñ moo tax mu ne rey weñ dugal na nit safara bañ loolu itam dugal na nit na kon ndekete donte picc la boo ko reyee te yàlla taxul li nga def sirk la mais yàpp moom dafa xaram yàlla ne wala taakulu bu leen lekk mimma lam yazkur ismallahi luñ tuddul turu yàlla alayhi ci moom ibnu abbas nga xam ne mooy xibul umma nee na li ci yàlla jublu mooy médd xam nga sax xar mi nga yeewoon ci mbaar mi ñëw fekk mu dee xam nga dee na yow ren ren di woo ko biñ koy ren itam tudd ñu turu yàlla wal mun xaniqatu xar moo xam ne nii dafa dafa xoju ci tabaarakallaahu buumam ci guddi gi di yo di mbee di mbee ba bi ngay ñëw fekk mu dee xar moo xam ne nii dafa jóge ci étage bi daanu ci suuf yàpp euh, euh, yàpp tas mu jaare fa dee xam nga yooyu kenn non seulement kenn rendiw ko waaye kenn tudd ci turu yàlla looloo tax mu tudde médd hakada kon kenn du ko lekk euh, yàlla wax na ci aaya bi ne wa ma dubiha ak lépp loo xam ne ci ay xërëm lañ ko rendee gis ki demoon ba ci ay xërëm tëral fa ay affaire rendi fa euh, moonam wér na ni xërëm yi la ko rendi kon kooku bu taxawaatee sax naan non man bu ma sax yàllaa tax mais endroit bi mu ko defee lu ñu fay defee te yàlla tax amul moo tax ñu ngi éveiller conscience su jullit yu bari léeg-léeg nit am événement moo xam gàmmu la wala conférence wala yaa xam lu ne jënd ay nag yu bari ne gis nga bis bi sëñ jiw laa koy rayal gis nga nag yi sëñ jiw laa ko déedéet kenn du ko rayal sëñ jiw kenn du ko rayal yonent bi danga koy jaamoo yàlla xëy na la la nga fay rendi yàlla nga koy tuddee léegi nag yàpp woo nga bëgg terale say gan ndax ku gëm yàlla gëm yonent bi yonent bi nee na fal yukrim dayfahu na nga teral say gan waaye jënd ay nag yu bari ay gëléem yu bari ay ganaar yu bari ne diw laa koy rayal ëpp naa rek la ñuy rayal subhanahu wa taala ndax mbiru rey dafa bokk ci yi nga xam ne diggante tawxid la ak shirk koo rayal ku dul yàlla rek yaa ngi dugg ci shirk loolu la Ibnu Abbas wax Euh, imam Kalbi ne lépp loo xam ne tudd ñu ci turu yàlla mooy lépp lu ñu rend rek ngir leneen ibnu ataane mooy rend yi nga xam ne waa si ñoo ko daan def si dañ daan indi seeni euh, giléem ak seeni tabarakallah jur ñëw ba ci kaaba gi di ko rendi seeni xërëm li lay wan ne intention am na doole bu aj masaana jot ñoom Quraysh dañuy dem munaa tëral fa seeni gëléem rendi ko mais bu ñu koy tëral di rendi bismil laata la ñuy wax ñu ngi wax ñu ngi koy rendi ci de laata wala nooda manaata wala nooda uzza ay centaine de ba euh, de tête lañ fa daan rendi gis nga l'islam ñëwee ba ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jib même pratique bi dafa continuer mais ku aj ba mun euh, muy bésu tabaski nooy def da tër say xar walla say gëléem nga loj ko mais lan ngay wax bismil bismillah allahu akbar nga gis ne kii tabaski itam fu ne ci àdduna bi day tëral kapsom mooy xaram ne bismillah allahu akbar allahuma hada anni wa an ahli yàlla maa ngi rendi xar mi ci sa tur di la ko tabaskee man ak sama njaboot eh, pratique bi benn la mais lu leen wuutale intention yi ñële xërëm lañ ko daan reyal ci même espace bi yonent ci bi mu ñëwee tuubal nit ñi même espace bi lañ continuer di rendi mais ci turu yàlla subhanahu wa taala euh, léegi nag bi loolu xewee ñoom Quraysh comme noppiwuñu woon yonent bi ne leen xërëm yi ngeen di reyal lépp luñ ci rey dafa mook lu médd ñoo bokk àtte dafa xaram kenn du ko lekk te ñoom dañ daan rendil xërëm yi di ko lekk dañ daan rendil maanaam dañ daan lekk itam médd ñoom nag seetaane daf leen inspiré ndax seetaane day inspiré nitam gis nga bul boo gisee nit yàlla yu bari ñemew ñu dialogue ci ay télé ay rajo parce que kii woote neen seetaane da jox ay argument yu précis yoo xam ne boo waxeek moom rek man na la yey ci ay arjuma ba nga xam ne keneen kuy seetaan dina jàpp ne yow kon moom moo ne ci dëgg parce que yow dem nga ba xamatoo looy wax fekk déedéet mën a wax taxu la nekk ci dëgg yàlla ne wa inna shayatin seytaane yi la yuuxuuna ñooy inspiré ila awliyaihim ci seen gaa yi zuxrufal qawli ay wax yu rafet ngir wor nit ñi dañuy éloquent dañuy mën wax mais taxul ñu nekk ci dëgg gis nga charlatan boo gis ak magicien boo nekk li ngay def nii lan la moom dina la indil sax boo wattul aaya ak xadis bu wane ne lii dara nekku ci ba convaincre la mais bu fekkul woon nga jàng alquran gis aaya ya ko tere ak xadis ya ko tere xam nga dalay convaincre ndax ñoom toujours dañ leen di jox éloquence loolu nattu yàlla la fitna la seetaane nag moo inspiré nitam yooyu ci Quraysh ñu ne yonent bi ñun de jaaxal nañ ñun daal li ngay wax amal gàmm yow ki ngay jaamu nan la tudd mu ne Allah mu ne ko nest moom nee nga moo bind lépp moo bind asamaan bind suuf bind ci ne yëpp mu ne ko waaw ne certes kon moo bind tous les mu ne ko waaw moo bind géléem yi moo bind xar yi nag yeeg yooyu mu ne waaw léegi sa yàlla jooju nim mu fooree moom léegi xar mu mu rey mu mu reyal boppam ak géléem gu mu reyal boppam nga ne boobu dafa médd dafa xaram te moom moo ko rey de moom nga xam nga ni médd yàlla moo ko moo ko rey mu ne de retour yow mii nga xam ne jaam nga da nga waroon a adorer kooku yow boo jëli jeen ak sa sa paaka yow tëral loolu reyal ko sa bopp ñu ne booboo dagan mais bi sa borom rey moom dafa aram mais yow li ngay wax amal nga am xam nga xoola wax jooju xoola ni mu rafetee ci xel ndax bi yàlla rey da nga war a wax ne effectivement moo gën a yey ci bi nit rey euh, yàlla yàlla indi ci bi ne ko bu leen déglu ndax ñoom seytaane moo leen di inspiré Euh, pour ñuy liy jaadilukum pour weranteeg yéen waaye wa in ataatumuhum boo leen digloo seen wax yooyu ba topp ci innakum la mushrikun ay yéefar ngeen di doon comme ñeen moo tax gis nga képp ku am neen di ko argumenté ba tax làmmeñam wu neex tax nga topp ko bàyyi alquran ak sunna maanaam yàlla nee innakum la mushrikun yaag moom kiif kiif doo ko yëg nag da ngay dem ba bàmmeel léegi ci génnoon nañ la ci diine ji bu yàgg maanaam lu yàlla xaraamal ba ñëpp xam ko bis boo ko bëggee daganal yow génn nga ci diini jaratul ngay julli jarul ngay war mais doo ko yëg gis nga loolu la loolu la loolu la loolu la imam Zujaaj wax ne ci la ñuy dégg ne bépp jullit buy jéem a araamal lu dagan wala ngay daganal lu araamoon lu ñëpp xam yow yaag ña topp gaa yi seetaan yéen a yem ay mushrikuun ngeen xam nga ñun dañ dañ naan li mu def bàkkaar te loolu mooy li xew bët ki démb rek am kuy wax naan lu tax jigéen ñi euh, ci miraas ñu yem ak góor ñi kooku kan lay critiquer ah yàlla lay critiquer loolu gis nga kaddu yooyu ku ko wax jënd nga ci lislaam moom kay xanaa yow nan ngay tuubaate naan waaw parce que émancipation dafa waroon am mais yow kan ngay waxal ki bind góor bind jigéen moom ngay wax ne ko da juum loolu mooy daganal lu xaraam wala xaraamal lu dagan gis nga rey lépp lépp lu ñu rend itam te yàlla taxul yow boo bëggee taxaw di ko argumenté ne dagan na cest à innakum la mushrikun loolu yàlla moo ko wax loolu moo dal Quraysh sax dayar ci suuratu Yaasin wax nañ ko an nut'im man law yasha allahu dañ ne yonent bokk nañ sa amal gam yi yow daal vraiment jaaxal nga yow yaa wax ne képp ku ñàkk yàlla moo ñàkkal ku am yàlla moo la amal ba pare yëwaat yow yaay ñëwaat di ñu sonalaat naan dee leen saraxe dee leen sarax ñi ñàkk mu ne li nga wax amal gàmm la yow comme ci ñàkk yàlla mi ko manoon a jox moo ko ñàkkal lu tax ñun ñu war a jox kooku xam nga loolu mel na ni wax ju rafet ndax ku yàlla euh, def un pauvre yow nga bëgg ko def un riche dafa mel ni yaa ngi opposé yàlla yàlla yàlla ne la yàlla ne yonent bi bul bu buñ la jaaxal ñoom seytaane moo leen inspiré moo tax wax rek la ñuy def waaye wax ju bari nag ku yegg bàmmeel di nga xam ne mënu la jàllale foofu kenn fa in qiila eh, abaxtum dabixata almuslim ida taraka altasmiya wal aya ka nas fi tahrim qultu inna inna almufassirina fassaru ma lam yadkur asma allah fi hadihi al aya bilmaytati walam yajcalu axadun ala dabixati almuslim in taraka tasmir wa fi l-aayati eh, ashyaa tadullu ala anna tahrim eh, almaytata wa minha qawluhu la fisq wala yufsaqu akilu zabihati almuslimi taariku li tasmir eh, am na nag werante bu ci am parce que dañ wax ne nit ki tudd turu yàlla ci li mu rendi dagan na mais nag dafa am ay escalier maanaam ay dimension nit mën naa rendi dara mais fekk dafa fàttee tudd turu yàlla maanaam nit ki nga xam ne jullit la mu ngi rey mais dafa fàttee tudd turu yàlla nee nañ dinañ ko lekk de même ki nga xam ne rendi na mais xam naa da doon wax di wax ba euh, rendi fekk na dafa euh, maanaam jubluwu ko ci jubluwu ko ci waaye werante bi fi mu nekk mooy ki nga xam ne moo ko tey jullit la moom moo ko tey mais rendi na mais tuddul turu yàlla mais moo ko tey ñu ne ndax reyam dina dagan kooku ñu ne déedéet du dagan euh, ndax euh, moom moo ko tey bañ a tudd turu yàlla ñu ne déedéet bu tuddul turu leneen rek te ren dina te gëm yàlla dana dagan euh, qaala sallallahu alayhi wa sallam araayta arrajulu minna yasbaxu wa yansa an yas an yusamma allah taala qaala nabi ismullahi ala fami kulli muslim yonent bi dañ ko laaj ne ko waa ba waa joo xam ne da doon rendi fàttee tudd turu yàlla rendi boobu lu ci ne ndax dagan na mu ne mën na ko lekk ndax julit à tout moment day tudd yàlla xam nga julit avant muy rendi lii tudd na tudd yàlla même kii wax sax dina barke yàlla nangam billahi maa ngi wax ne nangam maanaam jullit à tout moment day tudd turu yàlla euh, de même que moom jullit bi bu fàttee itam tudd turu yàlla itam doonu lu intentionnel loolu tax ñu bari ne dana dagan donte am na ñu ko tabaarakallah euh, gën a yaatal wa axbarana abu mansour aydan bi isnaadihi an ibni abbas anna annabi sallallahu alayhi wa sallam qaal yakfihi ismuhu euh, wa in nasiya yusamma xiina yadkur fal yadkur isma allahi wa yadkur summa la yakul euh, xadis bi moo gën a yaatal ibnu abbas nee na yonent biñ ko laajee dana doy na ci rek bu ko fàttalikoo mu ne bismillahi rahmaan donte rendi ba pare wala bu demee bay lekk te muy masala bi ñu waxoon ne Cheikh Al Khalifa looloo bu dee bañ tegal ko bool bi bu nee bismillah diglu ci loolu bu lekkee dana dagal euh, wa axbarana amru bnu abi am bi isnaadihi an aisha radiallahu anha anna qawman qaalu ya rasul allahi inna qawman yatuuna billaxmi la nadri adukira smullahi alayhi am la fa qaala rasulullah sallam sammu alayhi wa kulu hada axiru kalaamin waaxidi wa taqad wa qad taqaddama qawluhu sallallahu alayhi wa sallam laana allahu man dabaxa bi gayri li gayri li la xadis bu mujj bi mooy li ñu waxoon léegi jiital ko Aïcha moo wax ne yonent bi sallallahu alayhi dafa am ay nit ñu ñëw ci moom ñekk ñun de dañ jaaxle dañu am suñuy dëkkandoo yoo xam ne dañuy yàkkal ay plat plat yoo xam ne monsieur la te ñun xamuñu ndax ñoom biñ ñuy rendi loolu tudd nañ ci turu yàlla wala dit ñu la doon laaj nag léegi lu ci lu ciy war yonent bi ne doy na ci rek yéen boo leen tegee plat bi war a lekk yéen ngeen tudd yàlla te xanaa kon masala góor gi gën na leer fii waaye dafa am ay tëkku yu metti yu ci dal yonent bi nee na intentionnellement képp ku rendi dala tudd ci keneen ku dul yàlla yàlla rëbb na la yaa xam xërëm nag nga ko defal walla koo mën a doon yàlla yàlla musal ñu ci rendi dara ci lu dul turu yàlla rawatina nga def ko ci lu intentionnel euh, mbiru xërëm yii nag nga xam ne yaatu na ci jamono ku ko topp ku ko topp bootul foofu la lay mujj ji ndax bu fekkee fu ne nga dem fa sarax bu ne ñu digal la ko lu ne ñu rendi loola ko li nga duggee ci cadre boobu te doo ci bàyyi xel al kabiratu taasiatu wal xamsuuna fi man iddaa ila gayri abihi wa huwa yaalam euh, imam zahabi mu ngi wax kabira cinquante neuvième bi muy euh, nit koo xam ne day woote woo ku dul baayam muy wax ne moo ko jur te moom xam na ne kooku jur ko ku ne xam na ne nit ku ne problème ku lay jur loolu du problème choix personnel nit ku ne da ngaa judd rek xàmmee xam ñu ne la béy nga sant wala fal wala jóg wala njaay ku la jur nga ne diw ak diw yow kon defoo ci choix léegi nag boo juddoo xepp yi nga juddoo dem xooli ji famille yu siiw yu am mbooloo yu am tur nga revendiquer ne foofu nga bokk ñooñoo la jur léeg-léeg sax bu dee Diop nga sant euh, euh, par coïncidence ñooñu sant Diop nga def effectivement doomu diw moo xam doomu président laa wala doomu ministre wala doomu kilifa diine wala kilifa aada yaa xam koo war a mën loolu dafa bokk ci bakkar yi gën rëy ci l'islam non seulement li commettre nga li ñuy tudde mensonge waxoo dëgg mais itam da nga yàlla yàlla nga bëgg a wax ne que lu tax nga boole ma ci famille sàngam mu doon nit amul droit ne ay ak a neexoon diw jur ma kenn du ko def kenn du xeeb woy juram kenn du xeeb famem d'ailleurs dafa bokk ci péché yi gën a rëy amma nag kuy woote ne doomu diw laa te nga xam ne yow nga xamal sa bopp ne kooku jur la juru la wala diwee sama yaay nga xamal sa bopp ne diw juru la te man dégg naa fi ci réew mi ñoo xam ne nii dañuy wax ne eh, sëtu diw lañu sëtu doomu diw lañ ma dégg famille ñooñu di wax ne kooku di wax ne doomu diw la wala sëtu diw bokkul ci ñun xam nga lii lii du jàmm hmm? lii xam nga dara jaru ko yàlla ñu ci yàlla musal an saad radiyallahu anhu qaala rasulullah man iddaa ila gayri abihi wa huwa yaalam annahu gayru abihi faljannatu alayhi xaram rawahu albuxaari wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annabi sallallahu alayhi wasallam qaal laa targabu an abaikum faman ragiba an abihi fa huwa kaafir rawahu albuxaari wa fiihi aydan man iddaa ila gayri abihi fa alayhi laanatullah wa an zayd bni sharik qaal raaytu aliyan radiyallahu anhu yaxtubu ala alminbar fa sabiqtu yaqul wallahi ma indana min kitabin naqra'uhu illa kitabullah wa ma fi hadihi saxifa fa nasharaha fa ida fiha asnaanu alibil wa shay'un min aljirahat wa fiha qala rasulullah sallam almadinatu xaramun ma bayna ayr ila zawr faman axdata fihi xadasan aw awaa muxdisan fa alayhi laanatullahi walmalaikati wannas ajmain la yaqbalu allahu minhu yawma alqiyamati minhu sarfan wala adla wa man tawalla غير مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة رواه البخاري وعن أبي وأبي ذر وعن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن ادعى ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله walaysa kadalika illa xaara alayhi ay rajaa alayhi rawahu muslim kii raglu na lool yonent bi dafa wax ne ci xadiisu Saad nee na képp ku woote ne diwuma jur te yow mii wax loolu xam nga ne diw jur la maanaam loolu dafa am bunta buñ ci di ndax xam nga xale bi màgg itam nga nekk doomu diw nga te fekk yaay ji moo ko naxe wala nit ñi ñoo ko naxe mu naan diwee sama baay di ko a dëkk bi moom xamul kooku kooku euh, bàkkaar bii du ko dab waaye képp ku ne daal jiw mooy sama yaay wala jiw mooy sama baay te moom xam na ne waxul dëgg loolu amul euh, yonent bi nee na xaw ma kan waaye yow moom na araam na ci yow yow mi def loolu ndax loolu nit du ko def ci nen képp kuy wër naan jiw ma jur te fekk diw juru ko intérêt la ci lal noonu nga ci lay intérêt nag comme yow ci mensonge yi nga bëgg a dundee àjjana nag moom këru dëgg la moo tax doo fa mën a dugg ajjana xaw ma kenn waaye araam na ci yow donte yaa ngi julee ko woor lu boog nga tuub ci yonent bi waxaat na ci xadiisu abi hurayrata ne bu leen xemmem wëlis seeni baay maanaam bu leen xeeb seen baay la bu wax kenn ku ne këla jur donte na nga bëggoon yow euh, sa baay mel ko xëy na nee nga mel ko waaye moo la jur yonent bi sallallahu wax na ne même doom bu amee baay boo xam ne ndeyam ak baayam kenn baaxu ci kenn du ci jullit ji sax diine ji yàlla na wayn jaaxadaaka ala an tushrika bi seulement bu ñu lay invité ci mooy yàlla falaa fala tutihuma bu leen topp waaye nag avec tout ça xamal ne say jur lañ wa saaxibhuma fi dunia maarufa na nga ànd ak ñoom nag ci njëkk kon amoo droit rek ne sama papa baaxul sama yaay baaxul nu ma neex laay def déedéet donte baaxuñu mais amoon droit yow di leen xeeb kon yonent bi leen képp ku xeeb baayam wala yaayam bay woote woo keneen fa huwa kaafirun kooku yéefar la euh, mais ku ne loolu kufrun duna kufrin la comme niñ ko rombee ci gannaaw xadis boobu Buxaari moo ko solo beneen xadis bi yeneen ci bi nee na képp ku wootee ne diwooma jur te kooku juru la yàlla rëbb na la parce que généralement yu mel noonu yàlla nga opposé yàlla nga wax lu tax nga boole ma ci famille sàngam te am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla eh, neexul waaye yàlla lim leen def neexu leen am moom da koy dégg ci nit ñi man daal vraiment xaw ma yàlla lan la mais man daluma ci daal dalu ma loolu baaxul kenn du ko def mu ngi mel ni rek góor naan man daal bu ma sañoon nekk jigéen walla jigéen naan man daal vraiment góor ñi ñoo jël favori yépp man dama waroon doon góor rek yaa ngi opposé yàlla yaa ngi opposé xere ñu yàlla te gis nga xadisu Buxaari yi bi mu nettali muy xadis bu siiw Seydina Ali ibnu Abi Talib ku ne xam ne ne mooy baabul ilmi dafa daan wax loo xam ne ku ko dégg da ngaan waaw kii xanaa yonent bi eh, mooy waxaat ci làmmiñam ndax Sidna Ali dafa bari woon xam-xam te am éloquence te bavarul woon moo tax boo déggee waxam rek day dugg sa biir xol am nag ñu koy wax ne xanaa yonent bi da daan tëjoog yéen ci néeg jàngal leen lu mu dul wax ci pénc mi yéen famem ndax cousin am la mu ne ko déedéet yonent bi li mu daan jàngal ñëpp loolu lañu daan jàngal amuñu lenn lu ñu xam loo leen xamul alquran la fi bàyyi ak sunna dafa fekk nag yàlla mooy jox dégg-dégg ku ko soob yàlla nag xëy na mën na jox ni dégg-dégg boo xam ne aaya bi nga jàng moom bu ko firee di nga xam ne ni ko déggee woon ak li mu wax du benn de même que bi waaye yonent bi beraluñu dara xanaa lu dul lii ay Aliou nag bi muy wax loolu mu ngi taxaw ci minbar bi ne amuñu lu ñuy jàng ñun nëbb ko lu dul téerab yàlla bi ngeen xam ak xanaa bokk li ne ci saag bi waa fi hadi saxifa benn saag bu ndaw la yor xam nga loolu bu ko waxoon yem ci ñu ne non kon ay sëkkëram ay wey nderem la fa kii mais sac bi da ko tuur devant tout le monde nee na ñu gis ci ay yàqu gëléem yàqu gëléem yu wow ñoom amuñu woon ay feuilles yuñ mën a binde époque boobu moyen d'écriture lii la mooy dañuy ku ne xam ne ne euh, les plateforme des os am na os plat ak euh, cour ak yu mel noonu Euh, léegi ospla yi nga xam ne mooy euh, dafay yaatu ci gëléem ku ne xam ne dina am espace ñoom ci lañ daan bind lu ñu bëgg a immortaliser de même que bu ñu reyee gëléem wala xar dañ koy tàllal ba mu kii après ñu enlever karaw yi bu ko defee mu doon cuir rek mu des ci dañ ci daan bind ay bataaxal di ko lem ñoom amuñu woon ay feuille ak ñun yi ñu am ah nag yooyu la ci génne muy ay yax ñu gis ci lii euh, mu ne mu ne yonent bi nee na euh, Madina daal diggante espace tel ba espace tel dafa aram ni Makka yi képp ku fi def lu defuwul wala nga fat fi ku ku fatuwul yàlla rëbb na la ak malaaka yi ak nit ñëpp maanaam Madina yàlla da ko sécuriser spirituellement ba nga xam ne képp ku fa fat sàcc wala kuy eh, eh, kuy def cambriolage wala yu mel noonu yàgg nga def ko yéen a yem yàlla dina la rëbb ndax Medina yàlla moo ko sécuriser moo tax bokk na ci dëkk yi ëpp sécurité ci monde bi donte loolu mooy zahir bi sax mais baatin bi ay malaaka ñoo fa nekk am permanence di ko garder ba boo fa bëggee def safaan sax doo ko fa mën a def mu ne képp ku ko jéem nag musiba euh, yàlla du la nangul julli du la nangul say naafila du la nangul say farata Euh, même xadis ya ci li àll yi génne gis nañ ci waa wax ji te mooy wajhu shahid bi lii la ci xadis bi soxla yonent bi ne man tawalla ghayra muwali bépp jàmm boo xam ne xeeb nga sa sang ne diw mooy sama sang nga gis ku siiw nga ne kookoy sama kilifa walla nga gis koo xam ne ni dana diw mooy sama baay ngir xeeb sa baay wala sa yaay yàlla rëbb na la ak malaaka yi ak nit ñëpp loolu rek la ci soxla woon ali loolu la génne rawaahul Buxaari d'ailleurs sax ci lañ jële euh, ci tasawuf ne nit itam bu amee sëriñ ba ba def ko kilifaam bu fa jugeetee loolu dafay dal gis nga moom lañ def surut ci suñ tariqa tiyaani radiyallahu euh, bu bu Cheikh na tiyaani boo jëlee tariqa bi doo ziyaare ci beneen waliyu parce que Euh, moom ki nga xës jébbalu ci moom maanaam ki nga xës jokku ci moom kooku léegi mooy sa wayjur boo demeetee ci biti ñu ne la loo doon nga revendiquer leneen lu dul juréel googu mooy yaa ngi wone ne keneen mooy sa baay kon yàlla rëbb na la dog mooy dog gi ñuy wax ci tariqa bi de même que boo demaatee feneen foofu juruñu la ko mooy ngay woote ne keneen ay sama baay effectivement loolu itam dalay toppaat ndeke kon ni mu nekkee ci zahir noonu la nekkee ci baatin euh, yonent bi waxaat na ci beneen xadis boo xamee ne Abu Zar moo ko jën moo ko génne mu ne euh, bokkul ci ñun képp kuy woote woo ku dul baayam diwuma jur te diw juru la euh, te yow nga xam ko képp koo xam ne itam da wax ne man diw mooy sama baay te kooku du sa baay Eh, na nga préparer sa chaise ci safara parce que safara nga jëm doy na ci rek fenkat nga te fen dafay yóbbu nit safara eh, loolu nag bokkul ak nit kuy janook moroomu baayam naan kan papa déedéet bokkul wala naan man doomu diw laa diw ma yar ma mais jublu ci nangam ndax masalan boo ne diwee sama sëriñ nga ne mooy sama baay loolu wàññul dara bokkul ak lii muy wax nii mais généralement képp koo xam ne yaa ngi dem naan doomu diw laa eh, dafa am intéret boo ci bëgg a dabu ji boobu la ñuy wax loolu moo xaram xëy rek xool ay sant yu siiw wax ne moom nga sant di wala jur te yow diw diw sax xamula loolu <laughs> kooku wax dëgg yàlla yàlla ci yàlla musal te dafa mel ni nag euh, itam xet la ci manque sax personnalité manque euh, nit daal dafay fier ci fi ko yàlla def yonent bi nag kon képp ku woote ne jiwuma jur na préparé chaise am ci safara ndax du wax katu dëgg képp ku wax itam ab jullit nekk yéefar nga wala mu ne noonu yàlla bi nee na baat bi du neutre baat bi day dem ci moom direct vérifier xolam bu xoolee xol bi ngëm yàlla ne fa bëgg yàlla ne fa kon invalidé na ñaar yi wax ndax boo ne yéefar nga te ngëm yàlla ne fa kon wax bi du dëgg boo nekk bu nekkee ami de Dieu xaritu yàlla te nga ne noonu yàlla nga baat bi du dëgg yonent bi nag nee na baat bi bu demee vérifier xolam gis ne du dëgg moom day dellu si moom baat bi ci ka waxoon installé wu fa moom maanaam lan la bëgg a wax mooy yow ki nga ne yéefar la moom du yéefar yow yaay yéefar maanaam même même yow bu fekkoon sax doonoo woon yéefar ba bi nga koy wax baat bi mën na ñëw def la yéefar wala iyaazu billah de même que boo nekk noonu fi yàlla te nekkoo ko moom bés boobu yow nga koy commencé nekk yow waaw loolu lu ko jar moo tax jullit du xaste yàlla ñu ci yàlla musal alkabiratu sittun aljadal walmira wallud walladud qaala allahu taala wa min annaasi man yucjibuka qawluhu fi lxayaati dunya wa yashhadu allaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdu lxisaam wa ida tawalla sa'aa fi lardi li yufsida fiha wa yuhlika alxarsa wannasl wallahu la yuhibbu alfasad wa mimma yuzammu min alalfaadi almiraau waljadalu walxusuma qaala allahu taala Euh, qaala al-imaamu xujjatul islaam al-Ghazali Abu Hamid al-miraa'u ta'nuka fi kalaamin li izhaari xalalin fiihi li gayri garad siwaa taxqiiri qaa'ilihi wa izhaari maziyyatika alayhi wa ammaa al-jidaal fa cibaaratun can amrin yatacallaqa bi izhaari al-madaahibi wa taqriirihaa wa amma alxusumatu fa lijaajun fi lkalaami liyastawfi bihi maqsuudan min maalin aw gayrihi wa taaratan yakunu ibtidaan wa taaratan yakunu ictiraadan walmiraau laa yakunu illa ictiraada hada kalaamu algazali wa qaala annawawi rahimahu llahu iclam anna aljidaala qad yakunu bixaqin wa qad yakunu bilbaatil qaala taala wala tujaadilu ahla alkitaabi illa billati hiya axsan wa qaala taala wajaadilhum billati hiya axsan wa qaala taala maa yujaadilu fi ayatina illa alladina kafaru qaala fa inna aljidaala lilwuqufi ala alxaqi wa taqririhi kaana mahmuda wa in kaana fi mudaafacati alxaqi aw kaana jidaalan bi gayri cilmin kaana mazmuma kabira bi nga xam ne mooy soc soixantième kabira bi muy soixantième péché bi moom it bàkkaar bu siiw la gis nga ñu bari sax jàppe wuñu ko bàkkaar waxatuma laa di ko jàppe grand péché te mooy li ñuy wax werante euh, kabira bi ñuy wax werante euh, wala dagge walla xuloo maanaam yii non seulement ay bàkkaar la mais du yu ndaw yu mag a mag la te ku miin këru kër yu mag yi néew na nga xëy suba ba ngoon te gisoo fa ay altercation waaw maa fi weeroon fi weeru ma woon samay kepp yaa ko jël kii jëlu ko jigéen ñi gis nga yooyu la ji def <laughs> kër gu mag moom doo xëy suba ba ngoon te li ñuy werante werante ñu ko wala ñu xuloo ko mu jaral leen lu ne de même que grand place yi de même buntu école yi buntu resto yi da ngay jeg gis ñuy ñuy waxtaan ba yàgg nga seen dóorante yi e toogal toogal e waaye lan la mu ne waaw loo leen jote boo laajee loo leen jote rek am kersa mu ne dama wax ak moom mu naan ah waxoo dëgg xam nga waxuñu dara euh, loolu dafa xaram ci lislaam yàlla nee na wa minan naasi am na ci nit ñi yow yonent bi koo xam ne man yujibu ko def la yéem xawluhu waxam fil xayati dunia muy wax ci mbiru àdduna dañ naan expert la dina la indil ay éventualité lu ne yu ne ci mbiru àdduna te buy wax avec éloquence buy sidullah day seedeel yàlla ala ma fi qalbihi ci li ne ci xolam naan billahi gis nga boo xamoon ne ne sama xol nangam nangam te waxul dëgg de wa huwa moom moomu aladul xisaab moo fi dàq xulu du dara te bu waxee rek làmmiñ bi moo dàq lem bu waxee yow nag ba convaincre la waatal yàlla na la man nii laa ko gëmee nii kii ba nga jàpp ci loolu wa iza tawalla bu la wanee ginnaaw saa fil ardi commencé yàq ci kaw suuf di yàq sa der li yufsida fiha wa yuhlika al xarsa muy yàq eh, gàncax wa la ak ngirtal wallahu la yuhibbul fasad te yàlla bëggul ku yàq nda ndekete kon ku la dàq maanaam dialogue moo la gën a ban a yàq bu génne mooy dialogue yi ngay gis nit dialogue ba pare wax ba nga naan tey la asamaan si di daanu mu pare di génne na la tey toj naa fi ah yow yow yow yow waaru da nga naan waa man kii ak xët-xët ju metti ji mu nekkoon ci débat bi yépp débat bi jeex rek mu génne naan noo gisee affaire bi ah tey toj naa fi ah mu leen kii li mu doon wax yëpp ci catu làmmiñam kon la tollu woon yàlla moo ko wax nee na yooyu bokk na ci jikko yi ñu ŋàññ te muy werante ak dagge ak xuloo imam xujjatul islam muy abu hamidil ghazali nee na boo bëggee euh, xam lan lay firi mooy werante mooy di clash waxu nit ngir bëgg a feeñal yow sa bopp maanaam nit wax ba àggal nga génn na non waa ji li fi wax jaarul teguwul fen waa nangam nangam maanaam bu fekkoon sax xam-xam nga bëgg a wane xam nga mënoon nga jàngale muy li ma doon wax léegi eh, mais boo jëkkee critique rek yaa ngi bëgg a wàcc kooku mais boo suivre waxam lu mu wër-wër lan lay bëgg a wan wane du ma moroomu diw imam Ghazali nee na kon yow du wane dëgg taxula woon a jug da bëggoon a wane sa xam-xam ak sa dayo bokkul ak nag wane dëgg wane dëgg jarul sax nga naan diw li mu waxoon du kii dangay ngay jàngale rek yow li nga xam euh, kon imam Ghazali loolu la wax mooy xeeb nit ngir bëgg wane yow sa bopp loolu dafa xaram bu dee jidaat nag mooy dagge mooy nga leeral version yi nga xam ne moo am ci benn thème bu mu mën a doon nga ne diw lii la ci wax diw lii la ci wax kii ne non man man version bii laa ci am ñu werante comme ku bokk ci mazhabu Shafi'i kii bokk ci mazhabu Hanbal kenn ku ne indi say version kooku xam-xam la day génne xam-xam loolu dialogue moom la ñuy tuddee débat intellectuel mais bële moom euh, wàccante la te mooy léeg-léeg bi boobu bu ci kenn mënee wa moroom bu génne daan kan ñaw xam nga ne du ma sa morom kooku da doon wane boppam Euh, boobu nag baaxul waaye bu dee débat d'idée ak débat intellectuel kenn terew ko euh, nee na xuloo nag xuloo ku ne xam ne moo gën a wàcc moom yooyu euh, xuloo moom bootul xuloo moom xeex a ciy topp xeex waxoo dëgg yaa ko wax dañ da ngay jekk gëggi seen mi dug taxaw boo ma ko waxatee kii nag yow yow itam boo ma gis nga boo toog leen toog leen ci la ñuy daanale xulo léegi ñett yooyu yëpp dafa xaram ci lislaam nag Euh, nga xam kon Ghazali yàlla ñu ko yàlla euh, yërëmal yàlla yàlla yokk leeram gis nga ni mu définiré ñett yi te mooy débat d'idée débat intellectuel ak débat boo xam ne day sous-estimer nit ki ak boo xam ne moo gën a wàcc yëpp muy xuloo xuloo moom fa muy mujjee mooy xeex imam Nawawi Yaxya dafa wax ne werante nag bu dee dàgge muy débat dafa am bu positif ak bu négatif ñu ne ko foo ko jëlee mu ne yàllaa ko wax yàlla moo ne wala tujaadilu ahlal kitaab illa billati hiya ahsan yàlla moo wax ne wa jaadilhum billati hiya ahsan gis nga dafa am benn débat bu positif mooy débat bi nga xam ne débat intellectuel la dañ koy def pour dëgg feeñ yàlla nee na débat yu mel noonu nañ ko réservel pour les chrétiens et les juifs xanaa kon bu li xew léegi du xew du dëgg yàlla nee na boo leen dematee bay def débat avec les chrétiens avec les juifs na ngeen ko def dans les dans des bonnes manières wala tujaadilu bu leen weranteeti bu débatre débattre ahlal kitaab yi ak chrétiens yi ak juifs yi illa billati yi lu dul ci façon débat boo xam ne yi ah boo gën a rafet yow xam nga ay xam nga nooy embellir say wax embellir ko xam nga ay critères positifs yu ñu amee tuddal loolu seetal lii rek lii kay la ko alquran jàngale kon loolu mooy deba bu bu rafet yàlla nee na nañ ko épargnel ñooñu yàlla ne wa jaadilhum billati hi ahsan booy werante itam ak ñoom ci alquran ak sunna nang ko débattre ak ñoom dans des bonnes manières boobu moy débat positif wa qaala taala maa yujaadilu fi ayati illahi alladi illa alladina kafaru beneen débat bu négatif bi yonent bi dañ ko koo tere mu ne ko bul fekk ku la bañ bay lox di la invité débat di ngeen jubbo maag diw bokkuñu tariqa man rek lay bañ a dégg nga ne noonu nañ dem télé ba ñu débattre fa ma xool sama tariqa ak sa tariqa déedéet boo watul ci xeex ngeen di mujj doo leen déggoo kon ñoo xam ne déggoo leen yàlla nee na nee nga éviter di def ak débat ñoom parce que doo leen déggoo bari na ñu sorente bu ñu defee débat intellectuel rek fa la ñuy jaare bëggante ndax des bonnes intentions moo taxoon loolu mooy débat positif kon boobu day leeral dëgg débat négatif nag mooy koo xam ne campé na ci position ba yawmal qiyaamati du ci jóge kii campé ci position ba yawmal qiyaamati du fi jóge ñu ootante débat ci télévision wala rajo loolu lan la bëgg a organiser euh, bañante ak am euh, indi am ampleur ci ay wax yu bon ak yu mel noonu gis nga moo tax Yaxya Nawawi te man li may yëm mooy téere bi biñ ko bindeek léegi mat na sept siècle sept siècle alquran bi mu wàcceeg léegi quinze siècle te l'histoire ne cesse jamais de le confirmer euh, ci ay propos euh, yal na yàlla fayal ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, fa in qulta la budda lil insan min alxusumati listiwaay xuquqi fal jawab maa jaa bihi al-Ghazali in i'lam anna ad-damm al-muta'akkid innama huwa liman xaasahum bil-baatil wa bi ghayri ilmin ka wakiil al-qaadi fa innahu yatawakkalu fi al-xusuumati qabla an ya'rifa al-haqqa fi ayyi jaanibin wa huwa fa yuxaasim bi bi ghayri ilm Imam Zahabi nag indi benn question boo proposé yow ne waaw boo nee ma waaw mais nit mënul dund sans mu werante kenn mënul dund sans mu dialogante kon boo nee dañ ko tere ba nga wax ne péché la mais kon finalement nu ñuy def mu tontu la ne li ma li imam Ghazali tontu woon rek laa lay tontu mooy nit mënta ñàkk indi ay argument pour werante ci dara mais werante bi ñu bi ñu tere mooy buy jur xuloo xuloo boo xam ne yow nekkoo ci nen ba pare nga cramponné ci di ko défendre nee loolu moom mooy liggéeyu avocat avocat xam nga moom moom mooy werantel koo xam fekkewul xeex xam nga liggéey boobu kenn xamul lan yow yow avocat yaay fekk xeex boo xam ne ba muy am bootu sa juddoogul juddoogoo ñu revivre procès bi nga gañe ko yow tu es censé nga gañe bu ko defee sa client daan man daal lenn rek laa bëgg mu mettre mooy nga gañal ma procès bi tous les moyens sont bons pour nga gagné procès bi moom nag mooy fekk témoin oculaire yi nga xam ne ñoo fekkee woon fee yi wax ba àggal mu waat ne waxuñu dëgg xam nga kii imam Ghazali nee na kooku kibal la euh, yooyu dañ koo tere wax dëgg yàlla euh, yonent bi sallallahu alayhi da daan ñaanal ku bàyyi werante ci boppam maanaam ku ëppale boppam werante euh, moom daawul werante wa yatruku nafsu min jimil xisaali miran maa laysa yaani mi iksaaran min anniami maam Cheikh Al Hadj Malick nee na yonent bi dafa moom moom moom maanaam dafa dépassé loon boppam ñetti mbir mooy werante ak di wax lu ci yoonam nekkul ak bari looy moom yonent bi da ko bàyyi boppam gis nga jullit warul lu xew rek ci actualité doon sa actualité bopp nit ku ne bu fekkee da ngay jàng yow sa actualité mooy sam njàng te bu fekkee euh, da ngay maanaam da ngay da ngay liggéey yow sa actualité mooy lan mooy sa liggéey bu dee jigéen juy sëy la sa actualité mooy nooy def ba sa jëkk jëkkër nga déggoog moom mu gërëm la mais boo bëggee Manchester United joueur bu fa nekk nga am salaire lu mu toll mais yooyu bopp bu mu ancré wu wax dëgg sa programme quotidien daf lay jafe nag club bu ne bu ne Chelsea nga xam lu fa nekk Euh, Real Madrid nga xam jour bu ne lu muy fay ko ak coach ba finalement yooyu moom mooy mala yaani minal aqwaal yàlla ñu ci yàlla musal wa rawaynaa fi kitaabi Tirmizi an abi an ibni abbasin qaal rasul sala kafa bil mar'i isman an la tazaalu muxaasima euh, gis nga imam Ghazali xawma imam ibnu abbas abdullah ibnu abbas dafa ne yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam doy na ci nit rek bàkkaar boo doon wër ku am bàkkaar mooy nit koo xam foo toll fu mu toll rek ñu ngi koy àtte ci xulu ah waxu dëgg euh, xam nga benn nit cent personne bu ñëw bu ñu toogee fi barab cent personnes wala ñu dëkk fenn yow tuteur bi minute bu jot ñu oola ne am na ñuy xeex nga xool benn waay muy xeex ak keneen nga àtte leen demaat toog toogaat tuuti ñu ne am na ñeneen ñuy xeex nga ñëwaat même waaja di xeex ak keneen balaa mat quinze personnes nga oo kooku dégg nga mais yow benn nit ki ku mu xeexal pare xeexaat ak kacca de yonent bi nee na matadi ak bon ak bari bakkaar weesuwul ku fuñ la attee nga def xeexaat fële bokk na ci sama idée bu ma déggee nit joteeg nit ma rafet njort ci moom ma jekki-jekki dégg même nit ki jotewaat ak keneen même nit ki jotewaat keneen balaa mat sept personnes man xam naa fi may teg kooku ndax sikka gi ci kàllale ki ki ki nga xam ne mooy joteeg ñëpp kon ndeke jullit maanaam jullit mënu la ñàkk xuloo mënu la ñàkk werante waaye bu récurrent wee nag jikko la te bu boobaa war na ci xoolaat bopp wa jaa an ali qaala inna alxusumata laha faxmun qultu alfaxmu bi dammi alqaaf alquxam wa fatxi euh, qaa quxam wa hiya almahalim Sidna Ali dafa wax ne malheureusement xuloo baaxul benn yoon euh, parce que xuloo maanaam safara safara suy tàkk la boo ci duggee itam doo ci génn bari na ku dugg kaso boo demoon doon ko seet danaan oh def naa erreur bu ma yëgoon du ma xeex da ngay gis nit rek ne da nga koy na noggatu nekkete nit ki moo la man fuuf mais doo ko yëg xam nga lu mu la mane mooy ay bralon la am ngay mbéj di dóor di saaga mu doo fayu du fayu de léegi nga pare dem naan waaw du day du day kii lijjanti naa kaawam fekk yow lañuy ñuy lijjanti sa kaa sa kër ngay toog rek jekki-jekki oto ñëw buñ la doon jox sax eh, convocation mais dañ laa kay te yow yaay diw nga kay dugg ñu yóbbu la foo xam ne nii moom dina continuer dox ay soxla xaw ma mbécc yoo ko def waaye moom mbécc dina sa <laughs> dóor te du laal sa loxo nga toog kaso dix doo am sax dossier xam nga kooku ku la ne woon bu ñu tourné waatoon carte yi ba indiwaat vidéo bi ba heure boobu nooy def nga ne dama xool sax moo tax nit euh, jarul ngay dugg ci xuloo parce que ful la nga koy jàppee ak fayda mais finalement yow yaay mujjee te loolu gis nañ ko léegi bari na ku ne ci média bi wax lu ko neex di jaay ful ak fayda moom personne bi moom la ñuy mujjee humilier humilier ba mooy mujjee defaat ay vidéo di excuser waat amul. hum ana fierté bi nga doon oote ci débat bi maanaam di def débat ba dérapé fa euh, te loolu lañ loolu lañ la tere woon ngay défendre ses positions ba dérapé fa après ñu woolu la euh, ci ay barab wax la fa yoo xam ne ni boo sañoon kenn du la ko wax après yow ñu e-, exiger leen na nga jégalu loo doon défendre di nga nanguwaat lu yiis loolu te bu ñu dokkoon njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam depuis mën nañu bañ a dal euh, kon qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man jaadala fi xusumatin bi gayri ilmin lam yazal fi suxtin xatta yanzi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadisu abu hurayra nee na képp ku werante ci xuloo euh, te amoo ci xam-xam di défendre dara te amoo ci xam-xam doo dañ ci meruk yàlla ba ba nga ciy gis nga nag jullit dañ bëgg bu nekkee ci position mu dem ba xam ne lii du loolu maanaam modeste gi muy amaat ñëw jéggalu génnaat ci loolu geneen jaamu yàlla la jullit waru ko rëcc euh, ëppale boppam wa an abi umamata radiallahu anhu an nabi qaal ma dalla qawmun ba'da hadyin kaanu alayhi illa utul jidaala summa tala euh, euh, unzur kayfa darabu ma darabuhu laka illa jadala xadis bi mat na bàyyi xel abi umaama moo ko wax nee na yonent bi nee na yàlla bu indee orientation ci communauté ñu jub ñu dem ñoom di foowee njub gi di foowee njub gi ba yàlla yàlla jëppi yàlla spirituellement invisiblement dafay rocci njub gi ci seen xol yi mais buñ bu koy def duñ ko yëg mais yonent bi nee na mandarga gi ñuy xam ne euh, njub nekkatu fa mooy werante la ñuy dese léegi te defe naa lii ku ko déglu bari na fuñ daan nawe diine xuloo ak werante léegi lañ fay dégg loolu nag dafa am lu muy firi mooy lumière ba pacifié woon foofu rocc nañ ko lumière buñ ko roccee ci xolu nit rek ci clash lay mujje saaga wax yu bon xuloo werante parce que dara nekkatu fa du dëgg xam nga même sax kii yoroon xaalis denc ko fenn di joxe dépense fekk xaalis baa nga fa xam nga doom problème kenn du ko dégg waaye bu jënd ay ceebam ak di jënd ay diwlin ñuy consommer ba yépp jeex mu xool xaalis ba ba jeex saako yi jeex gaz yi jeex courant bi ñu coupé ko boom kër gi nu muy mujjee mel buñ ko continuer di laaj day mer naan yéen da ngeen sof trop ah li ngeen fi nekk ka lekk nga waxal xaalis baa jeex bu ko defee ci xol bu tàngalee mujjee ak xul toog gi leer itam noonu la mel leer xol bu mu ne borom day kontaan day bég day yaatu waaye bu fa rocc ko euh, day mer ku ko romb sax mu nekk lu tax nga may nangam loolu nag yàlla ci yàlla musal ma darabahu laka illa jadala euh, yéefar yi bi yonent bi ñëwee woo leen ci diine xam nañ ne amuñu lumière xam nañ ne waa ji li muy wax dëgg la mais rus nañ koo topp ñu mujjee di weranteeg moom bu yon lu yonent bi wax abu jahlin wax la ca des benn bi ci des yonent bi nee na axfa axwafu ma axaafu aleykum aalimun wa jaddaalun axwafu ma axaafu aleykum zallatu aalim wa jidaalu munaafiq fi lqur'an wa dunya taqta anaaqu anaaqakum rawahu ibnu umar yonent bi bi mu laata faatu dafa wax saxaaba yi ne malheureusement li mu gën a ragal ci yéen te xam naa dana am mooy ñetti mbir mooy Euh, borom xam-xam bu saay-saay jàng na mais jubul gis nga faux yooyu muy def nit ñi dañ ko ciy topp te moom faux pas yi duñ xam ne tànkam moo damm mu def faux bi léegi ku koy roy bu agse ba foofu day def même faux boobu non seulement yàqu na mais ñi muy yàq kenn du xam ne mu toll kooku matul ragal te mooy sëriñ boo xam ne nii melul na mu war a mel ñaareel bi mooy nafiq hypocrite boo xam ne nii ku éloquent la yonent bi neen dama ko ragal ndax éloquence bi ak aisance bi muy am ci li muy wax yow est sa xel mën naa jàpp ni ki waxul dëgg déedéet te mooy borom daraja juy fen rek yàlla ñu ci yàlla musal yonent bi nee na ak beneen bu ñetteel mooy àdduna da ngeen di daw di ko wuti foo toll sëñ bi amaguma emploi maa ngi nii bi amee emploi te aw ma euh, aw ma promotion gis nga amaguma liggéey awma ma xaalis aw ma lii te da ngay fàtte ne am nga yàlla yàlla nan nga koy amee di yëgati ñàkk àdduna moom moo lay def noonu ngay daw di daw ba dugg a bàmmeel yàlla ñu ci yàlla kon daal jullit war naa yar boppam ci façon boo xam ne nii daal euh, werante ak wax yu wax yu ñaaw du ci du ci sori وروينا في الكتاب الترمذي عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض albali albaliga min alrijal alladi yataxallalu bi lisaanihi kama tataxallalu albaqara euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadisu abdullah ibn umar euh, yàlla gën a bañ ci jaam yi mooy nit koo xam ne dafa jekku làmmeñam ba nu ci neex la koy wëndeele xam nga am na ñoo xam ne kaar duñ daanu mukk buñ demoon ba war a wadda sax dinañu ëlbatiwaat wax ji ci seen làmmeñ ba indi ko ci seen euh, njariñ euh, ba même de même que xadis bu mujj bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam qaala dafa ne inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawma alqiyamati ahasinukum axlaaqan wa inna man abgada min abgadikum ilayya wa abcadikum minni majlisan yawma alqiyamati assarsaaruuna walmutashaddiquuna wal mutafayhiquuna qaalu ya rasulallah qad alimna sarsaaruuna wal mutashaddiquuna fama al mutafayhiquun qaala al mutakabbiruun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni malheureusement yéen ñëpp sama xeet ngeen yéen ñëpp sama xeet ngeen mais bokk na ci ñi ma gën a bañ ci sama xeet ngi mel ni papa joo xam ne xool na ay doomam ba gis ci jikko joo ne daal neexul ba neex nee doom maa la jur mais neexoo ma dara xam nga ne papa jooju ñàkk na ñàkk na ñàkk na pexe ci doomam jooju yeneen ci bi nee na yéen ñëpp sama xeet ngeen waaye sama xeet kii ma ci gën a bëgg ki ma ci gën a neex mooy kii ci gën a rafet jikko xam nga lu tax moom nan la def dafa rafet jikko ku rafet jikko kon ku ko mën a def rek yonent bi ngay toppandoo rafet jikko min kulli wasfin xamidin hada afala tafdilin rajaul baraya yowm muzdahami lépp luy rafet rek yonent bi moo jël kañot bi gën a mag kon moo gën a rafet jikko ku yàlla bind moo tax loo gën a rafet jikko yaa xam foo mën a dëkk yaa xam ku la mën a jur mais boo rafetalee sa jikko rek te rafet jikko mooy gisuloo la metti nga muñ ko te yàlla tax mën a tontu nga muñ ko te yàlla tax gis kuy xuloog yow nga ne ko baal naa la ci xol bu sedd guy gis koo xam ne yow rek lay bañ a gis te loo am ci lu baax nga jox ko ko toog yeneen bi nee na ku ma xam loolu ci yow donte bokkuñu jamono bo bokkuñu dëkk yaa ma gën a neex ci ki ma nekkal ci biir jàkk ji te melul noonu waaye le contraire moo am itam yéen ñëpp sama xeet ngeen mais ki ma ci gën a bañ donte duma bañ kenn waaye ki ma ci gën a soof ki sama xeet mooy ki gën a ñaaw jikko ci yéen koo xam ne nii li ñuy wax tàng saayin tàng xol nga xam ne du muñ dara dara ku ko laal mu laal la ñooñu ñooñu ñu ngi bëgg a rey nit ñi bi nee na ñooñu ñoom laa gën a bañ ci sama xeet ak sarsaaroona ñu bafaar ñi dañoo bafaar bari wax wal mutasaddiquuna ak ñi nga xam ne dañuy wax ba seen sidditu baat yi jug dinay am léeg gis kuy débattre day wax a wax ndox miñ ko tegal sax pour mu naan ka du ko tal naan non waxuma xew ma ko noonu duma la déglu ñooñu yonent bi da leen jëppi yooyu éloquence yàlla ñu ci yàlla musal ah, wal mutafayhiquun ak ñi nga xam ne dañoo euh, dañuy rëy dañuy rëy rëylu mooy ku fier ci boppam da nga xam ne sax yow même bu la seet si woon pour nga ut foo ko teg rek problème lay doon ndax fiertem yenent bi nee na ñooñu laa gën a bañ ci sama xeet yooyu yëpp synonyme lan la mooy fierté rek ndax euh, sar bi mooy ku ku bari wax ci moom la mag ñi daan wax naan dafa dog la nit koo xam ne day wax fu mu tollu euh, mooy bañ nanguwul daanu ñu naan diw du daanu mu ku nanguwul daanu nag égal synonyme mu nga rëy wal mutashaddiquuna ñi nga xam ne dañuy wax ba seen sidditi baat yi jóg égal dañu rëy ñoom it bëgguñu déglu kenn am na ñoo xam ne dañoom am feebaru déglu kenn wal mutafahiquun moom moo ko firi mooy ñu rëy ñi te loolu yàlla ñu ci yàlla musal bi jaay sayyidina sallallahu alayhi wa sallam waalam annahu laa yadxulu fi dammi taxsiinu alfaadi alxutab wal mawaid in lam yakun fiha ifraat wa agrab mu ne nag nanga xam ne euh, éloquence yooyu ñuy wax bokkul nag ci éloquence yu négatif yi nit kuy wax ci diine rafetal style bi muy waxee ba nga xam ne dina doon lu acceptable ci les euh, oreilles non loolu moom bokkul ci loolu ngay def ba defal ko ay riim wala ngay def discours en arabe defal ko ay riim wala en français bu rafetal style yi ba mu neex a dégg loolu kenn du ko dugal ci éloquence bu ëpp waaye ala xaalin même sax ku yàlla may loolu boo ci ñu bañ dañuy bañ nga ëppal ci ba mu jéggi dayo ndax bu boobaa au lieu que nga joxe message mais léegi talaa ngay wane talaa talaa ngay wane ci ni nga maîtriser vocabulaire wala ni nga maîtriser euh, <clears throat> grammaire te bu boobaa finalement joxeetoo message mais sa bopp ngay wane euh, yal na yàlla euh, fayal ñu yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi max di fadli wa juudi may ñu dégg ak topp hada huwa tawfiq min indillah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh